gis nga noonu ñu délaissé woon seen combat ak Pastef au pouvoir noonu la ñu paree délaissé seen combat ak Pastef dans l'opposition mhm. ña nekkoon ci pouvoir activer presse ñu xeex ak Pastef ñoo nekk ci opposition bi mhm. activer presse ngir mu xeex ak la pouvoir ndax mhm. la seeni dossier mi ngi ñëw dañuy créer agitation créer coow créer contre-feu ba bu ñu laalee seen dossier sax wane seeni looxoor ñu ne nguur gi dafay jéem a museler l'opposition alors que yow réduction des comptes lañ nekk di def. yow mhm. normalement ci réew mi waroo too fi am benn activité politique man dama gëm ni en matière de détournement de deniers publics am na somme yoo xam ne boo ko xësee ba détourné. Mhm. waratoo am autorisation exercer benn activité politique. Mhm. man loolu laa gëm. léegi nag gars yi duñ ko def ni ñuy def mooy dañuy nekk ci réew mi jaay la rëy làmmiñ activer ay nit fay ay nit man gëm naa ni. bu ñu demee ba ci biir bari na affaire yuy feeñ yoo xam ne sénégalais dana ne ah kon lii moo waraloon coow li. Mhm. par rapport ak presse bi ak dossier yi. léegi nag dossier yi li nga ciy comprendre mooy ñoom seen lëlu bi xam nga dañoo agsi rek lëlu. biir mhm. waxul bi ñu demee ba maîtriser dossier yi génn na nga wax dana am suite gars yi commencé nañu wuyu ji ñii danañ defee rajo convocation yi loolu dana léegi nag loolu wax ko dafa am solo. Mhm. gis naa ku ne. dossiers yi jarut wax ñëpp xam na ni suite day am suite non lu jar a wax la. Mhm. parce que askan bi dafa toog di déglu commencé woon di poser question ñii lu ñuy def ci mbedd bi ba tey. Mhm. ñii lu tax jàpp ñu leen diw lu tax mu génn dëkk bi. Mhm. da ngay génne leen hey lii du règlement de compte justice sax dafa am nu muy doxee. dañuy assainir justice ba pare. door a bàyyi dossiers yi dem. donc dafa mel ni foofu it wax na ci lu bari ah. mooy que ni justice boobu moom dinañ ci def liggéey bu ci war ma nga xamante ni. véritablement dinañu. teg danañ fexe ba kuñ teg daan. lu ne lii réglement de compte la. exactement danañ respecté àq ku nekk danañ teg ñoom solo ñoom ay magistrats yoo xam ni ñoom jàpp nañ ni ñu jub lañ ñuy jubal lañ. Mhm. ba nga xam ne duñ ne diw. dafa ex euh, dafa exécuter commande politique. Mhm. donc loolu moom mënul ñax léegi nag. Mhm. ci réforme justice boobu man am na point bu ma d'accord. muy ban. muy diminuer les prérogatives du chef de l'État dama jàpp ne actuellement c'est prématuré. Hmm. réew moo xam ne administration bi président bi moo la wax ne la premier ministre am. Hmm. daf ko suufu miine ba moom contrôler tul lu bëri ci administration bi dafa am keneen kuy contrôler hmm. service de renseignement yoo xam ne seen not secret yi daf doon fuite comme pas possible waaw PV diffusé en direct ci audition mhm. benn opposition boo xam ne buñ dee vingt dix huit yëpp milliardaire lañ. Mhm. benn presse boo xam ne buñ dee vingt groupe ñoom it quinze yëpp c'est des presses corrompues manipulables. <laughs> ku ci wàññi sa prérogative doo yëlif réew moom. Mhm. man maa lay wax lii de président Diomaye bu wàññee pouvoir am ba amul dooleel loxo boobu noonu ñuy yëg dëgg-dëgg. bu yilif réew. waaw Sénégal nag du États-Unis ah. suñu démocratie quand même. maa la ko wax moom waaw il faut que président bi am ah, yenn pouvoir yi nga xam da koy da koy africain moo bindoo noonu africain moo xam loolu. foog muy yëg dooley président. te teg ci fii réew mu toll ak contexte bi ak li ci mën a am ak ay milliards li mu mën a def ça serait trop dangereux nga wàññi dooley président de la république lu lu war a am la nag mais après. man ma gëm ni point yu bëri ci programme yi Pastef mhm. du situation actuelle bi nga ko mun a dérouler mhm. Sénégal bu Pastef bu président Diomaye yor benn deux ans raxas lu bëri. Mhm. ci nga mun a dérouler point yooyu. mais mais mu mel ni Ousmane fàttewul également dossier bi nga xamante ni moom moo ko xañ mu nekk candidat. mooy l'affaire Mame mooy l'affaire Mame Dia Mame Mbaye Niang mu mu wax ne dossier bi ñëpp doon nëbbu. dox na ba léegi mu ngi ci taabalam. xam nga te yoon mu ci war a def. xam nga l'affaire Mame Mbaye Niang ñun ñëpp gis nañ Cour des comptes bi mu waxee enquête. Mm-hmm. Sénégalais yëpp dañ choqué woon ndax ñun dañu gëmloo woon ne enquête amul. Mm-hmm. kenn ci waxkati réew mi ki wax ni mooy journaliste yi gën a informé yu gën a crédible toog plateau. ñu taalal ko micro mu ne ko tudd kañ mu ne bi dossier bi amee. Cheikh Yérim Seck maa ngi lay nuyu bu baax. yaa ko tudd mu ne bi bi amee. juge dañoo def réquisition bindi IG IGF ñun leen rapport amul pré rapport amul këyit guy wax ci gestion Mame Mbaye Niang Prodac amul cour des hmm? comptes xawma IG euh, euh, publié waree ne loolu am na en 2017 hmm. hmm. Ousmane Sonko na la mi ngi sama table mooy am na benn chaine boo xam ne ñi fa nekk ñëpp dañoo fen ngir benn exécuter benn commande politique bu coûter la vie à des dizaines de Sénégalais bu def de centaines de blessés. Mhm. bu def dégâts économique bu kenn munta xayma bu dugal Sénégal ci benn zone de tension bu kenn xamul bu ñu dàqal ay investisseurs yu kenn xamul bu ñu dàqal touristes yu yurut jeex l'affaire Mame Mbaye Niang est-ce que de Mame Mbaye Niang est-ce de mais est-ce que loolu mën nañ ko tuddee honneur dans la mesure où <laughs> waaw waaw ce que non moo tax gis nga Mame Mbaye Niang cette affaire là dama gëm ni tribunal spécial lañ ci war a taxaw. waaw mais mais quand même est-ce que dina yomb parce que en sachant que ministre pour nga mën ko àtte il te faut benn haute cour de justice. bu nga xamante ni dinañ ko teg loolu day am man dama gëm ne loolu danañ ci jëm façon assemblée moom ci tas ko lañ jëm. par A ah ou B assemblée bi dañ koy tas. déet est-ce que loolu tamit Sénégal mën na supporter ah, élection yu nu mel. non nous sommes obligés parce que assemblée boo xam ne ay saagakat la contribuable sénégalais bi di. waaw bëri na fa ay député yoo xam ne dañ ko tas ñun du ñu ko ne fayal ay saagakat seen train de vie ak seen i pér ak yu kenn xamul ñooñu maam ay saagakat moom warul nekk sur le dos du contribuable sénégalais. Mhm. saagakat moom seen morom mooy mbedd bi saagakat yi ci toile beeg TikTok yi léegi man li ma gëm. mooy gis nga ñëpp ñi nga xam ni seen loxo taqee na ci nëbb rapport nëbb pré rapport wax ne am na wax ne amut gis ne am na da nga hmm, defoo ci sa liggéey da nga parjure ngir exécuter commande politique ñëpp dañu war a rendre compte l'affaire Mame dañu war a yeew gis nga ni ñuy setaanee li xew Guinée. Mhm. mooy massacre bi amoon ci stade bi. àtte mhm. gi ñuy àtte ñoom Dadis Camara. ñu ñu def benn euh, audience publique. noonu la ñu war a àttee l' affaire Mame Mbaye di ko gis. dana tax ëllëg benn homme politique. parce que l' affaire Mame Mbaye Niang dafa dem ba ay nit nekk candidat avec l' administration la complicité de l' administration. Mhm. suba président Diomaye bu bu génnoon ci lancé gi ne mën na aaye son principal adversaire mu nekk candidat avec l' administration. Hmm? moo tax war nañ créer fexe ba créer. mu nekk parce que waxoon nañ ko fii en président. Ah, très dangereux très suba président Diomaye principal adversaire mun na ko aay nekk candidat soxlawul mu koy wutal dossier judiciaire administration rek lay utiliser moo tax ma gëm ne war nañ teg barrière yoo xam ni dana ragal lu képp ku xalaat mu jëm foofu nga jéem a doxalee noonu moo tax ma gëm ni yooyu da ngay teg ay acte ay mesures yoo xam gis nga Allemagne. Mhm. bi ñu génnee ci guute bi leen nazisme indil dañoo indi ay loi ay barrières yu dëgër. Hmm. yoo xam ne benn allemand te pourtant tey la allemand yi gën a raciste mais benn allemand xalaatu di politique am des sentiments nazi. di ko hmm. fësal. waaw te pourtant nazi yaa ngi ba léegi biir Allemagne am sentiment yi Hitler amoon mm. ak gis-gis yi Hitler amoon ci àdduna bi ba léegi am na ay leader ah. d'opinion yu ko am biir Allemagne mm. waaye kenn ñemewu ko fësal ku ko fasal moom sa musiba euh, taxaw moo tax ma gëm ne yi am l'affaire ma mbay Niang yu yëpp da ngay jël des sanctions yoo xam ne ëllëg président Diomaye mi bu ko bëggoon def du ko ñeme mm-hmm. mais mais mais bu dee dañu déglu démb euh, <coughs> premier ministre Ousmane sonk ni mu waxee ñu bëri ci fan yi bi fii euh, son avocat Juan Branco ñëwee dañu jàppoon ne réouverture dossier Adji Sarr moom kenn mënul ko ñàkk euh, tax ba mu am. dossier boobu day tijjee ko waat maa la jox mais mais mais boo déggee li Ousmane waxee démb na lépp lu ñu ko def lu jëm ci moom. mën na ko baale du jóge ci premier ministre. Mhm. dossier boobu maa la jox exclusivité tey la kañ lundi tey la ñaata. tey la le 10. vingt une heures trente deux. waaw dossier Adji Sarr dana nekkaat de l' actualité. te du mais comment ça. dama cee xam lu wér lu bëri. mais amnistie bi fi jaar nag li ñuy defak moom. dafa am ay act yu xëy sulliwaat. comme lan. non ay falaa mënagum yam. non bëgguma weer nit wala weer ku ma informé. de non c'est-à-dire fi mu toll. xam-xam fan yii yëpp dañuy de trop rek. waaw damay exposé. waaw non c'est-à-dire fan yii yëpp nit ñi dañ ci wax. ba Juan Branco bi mu ñëw. Hmm. ne mbir yi même euh, maître Bamba Cissé wax na si. ne l'affaire pour ne Adji Sarr génne dëkk bi c'est c'est vraiment. ne Adji Sarr génne dëkk bi waaw. foofu sori na bi fi Adji Sarr nekkee. Hmm. ñi daan dem ci moom di comploter. Hmm. ñi daan wax ñi daan jëf loolu lépp dana ne fàng ci kanamu au devant de l'actualité li ko génne dëkk bi niñ ko ko génnee fi mu jaar ñi ko def lépp dana génn. Ahmed di mbay dinañ xam. la Adji va prendre sa revanche. sur sur les yi nekkoon. ñi ko monté la woon coup bi yëpp. Ah. dina leen weejee. waaw ah. maam Adji sataana rek li ci kenam sore mais mais mais lu ci mënti am moom mënu ci génn. waaw waaye mën na. xam nga léeg-léeg nga def njuuxum ñu ne la. plaider coupable ñu wàññi pen <laughs> Adji bu plaider coupable ànd tukki. Ah. léegi lii kañ man maa la ko léegi mi ngi au la. mbaa ay tour du génn nit ñi ne. foog moom la raw tour xam nga audio amoon. waaw bi baa vidéo yi génn. <laughs> vidéo nag. mais <laughs> door a am nag. sur sur l' affaire sur l' affaire. man di seetaan dama leen di ñaan ngeen partager live bi. ñi nga xamante ni laayke wu ñoon ñu laayke parce que Cheikh Ousmane fi ñu dugal lii. faaw ñu bëri war a mën a xam quand même non. non génn naa ci pour ma sori man kay maa tey la lënd bi ci tey la lënd le 10. le 10 à jàppal li ma la. réouverture dossier Adji xaw ma ndax dañ koy jugé ne waaye dana nekkaat au devant de l' actualité nekk actualité phare bi. Adji Sarr ñëw de coupable. ba pare. weeja ji nga dana plaider coupable de waaye daal xam naa ne aji moom dana jël revanche am. te comme que gars yi dañ doon wax ni vidéo am na ñoom seeni vidéo am na. loo bëgg a wax foofu. acca <laughs> laa yem nag si doo pare daal. non genre bi non non code code bi moom mënul nag. il nga tëbal mais mais bu bu bu maître Bamba Cissé ak Juan Branco defee seen conférence de presse ne véritablement plainte yi nga xamante ni jot nañu ko def fële ci CPI lu sérieux la quand faaw ñu topp gars yi ci ci ci. xam nga ay plus de quatre vingt et quelques personnes. ñoom ñoo si dee ay nit ñàkk seen liggéey ay nit ñàkk seen cër ak yu mel noonu yëpp. xam nga xam nga CPI. Hmm. li tax dossier bi war a am suite. Hmm. dafay dem ci sécurité nationale ak stabilité réew mi seen naal seen Aliou ñu ngi toog di waxtaan man a yow mais fàtte nga ne y' a quarante cinq milliards d' armement qui circulent dans ce pays nekkul ci loxo gendarmerie nekkul ci loxo police. c'est vrai dossier boobu ah ñu bëri dañ koy fàtte. Mm. Sénégal am na valeur quarante cinq milliards d' armement buy circuler ci réew nekkul ci contrôle police. armée ah, ni gendarmerie ni gendarmerie kan ko yor xaw mu xaw ma gis nañ ay sàmba boo yor ko di fetal nit ñi ci mbedd bi ndax delloo nañ ko mu déet xamuma fan la gànnaa yooyu nekk ñan ñoo ko yor lan mooy seen yéene ci réew mi ku nekk seen ginnaaw. Mm-hmm.